هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم
alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu àq di leen baal àq di amaat mbégteeg kontaante ñëwaat ak yéen ci seen tafsirul quraanul karim comme niñ koy defee bis bu nekk ci weeru koor bi xam ngeen ne tey la ñu am ñaar fukki fan ak benn ci koor gi muy fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci koor gi te xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na weeru koor fukki fan yi njëkk yi yërmande la fukki fan yi ci digg bi jéggal la fukki fan yu mujj yi goreel la ci safara kon dugg nañ ci fukki fan yu mujj yi yàlla nañu yàlla goreel ci safara goreel ci mboolem jullit ba pare xam ngeen ne fukki fan yu mujj yi ci la laylatul qadr nekk nga xam ne benn guddi la boo xam ne xayrun min alfi shahrin moo gën junniy weer kon ñu war see jaamu yàlla bu baax a baax a baax te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na xool leen ko ci guddi yu mujj yi fu- yi tool yi ci fukki fan yu mujj yi kon yàlla ñu yàlla taseeg bisub laylatul qadr ñu ñëwaat ak yéen ci beneen saar muy suratul mursalaati wal mursalaati màkka la wàccee mi ngi am juróom fukki aaya wal mursalaati nag mi ngi wàcc yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu fekk mi ngi ci minan nekk xaarul xiraa ndax xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan jékki-jékki rek dem xaaru xiraa daal dem làqatu fa moo ko jullit ñi ngir di daw mbugal yu metti yi nga xam ne fa la leen yéefari di moom la leen yéefari di mbugal benn bis nag bu mu demee xaaru xiraa làqatu foofu moo ko jullit ñi ñu nekk fa Abubakar Sadiq mu ne bi ñu toogee rek ci la yàlla wàcce saar bi di wal mursalaati urfan bismillahi rahmaani rahim yàlla subhaanahu wa taala bi ñi ngi commencé suñuy wax ak suñuy jëf ci tudd yàlla bi nga xamante ne nii moom mooy sell moo sell te màgg di wax ni yàlla mooy ki nga xamante ni mooy yërëm mbooleem mbindeef yi ci àdduna waaye mooy yërëm mbooleem ko gëm ëllëg yomal xiyaam saar bi yàlla mi ngi ko commencé ci xasam maanaam waat dafay waat yàlla lu mu wax mu ne wal mursalaati orfan yàlla mu ngi waat ci ngelaw yi nga xamante ni moom la yàlla di wàcce di ko yónni muy tasaaroo ngelaw yoo xam ne dafay nekk lu gaaw mel ni ay fas yoo xamante ni dafay tegaloo benn kaw benn fala asifaati asfan yàlla mu ne mi ngi waat ci ngelaw yi nga xamante ni dañoo dañuy metti ni ñuy wàcc dafay mel ni call mbeer buy wàcc asfan ak wàcc ngelaw yoo xam ne dafay sew ba mel ni call mbeer mu ne wan nashiraati nashran yàlla mu ne mi ngi géñ ci ngelaw yi nga xam ne mooy wàccee ndox ci kaw asamaan am na ngelaw loo xam ne su ëppee rek nga xam ne moom ndox lay àndal mi ngi ndox mi mi ngi waaj a wàcc ci kaw asamaan si fal faariqaati farqan yàlla mu ne mi ngi giñ ci aaya alquran yi yi nga xamante ni dafa ñëw di tàqale diggante neen diggante caaxaan ak neen yàlla mi ngi ciy waat mooy malaaka yi nga xam ne ñooy ñëw wàcc ci kaw jugee ci kaw asamaan wàccee aaya alquran yi di ko tàqale fal mulqiyaati dikran yàlla mu ne mi ngi wàcc mi ngi waat ci malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy wàccee wax yi ci yenent yi di leen ko sol di leen ko wax mu nekk wax yi boo xam ne ñoom ñoo koy wàcce ñoom malaaka yooyu uduran aw nuduran ñu ñëw di indi waaye aaya yooyu wala yi ñuy wàcc ci yenent bi mu nekk loo xamante ne ni dafay dafay indi lay pour nga xamante ni duñu am benn lay wala mu ñëw di leen xupp pour ñu nekk ñoo xamante ne ni ñu ragal yàlla la ñuy doon ba ñu dugg ci mbugal bi nga xamante ni mooy mbugalu ëllëg yowmal xiyaam yàlla lan lay waat waat yooyu jawaabul xasam bi mooy innama tuwaaduuna la waaqi yàlla mu ne man de li ma leen di dikk luy ñëw la yowmal xiyaam bi ma leen dikk ne dina ñëw xam leen ne dina ñëw yowmal xiyaam boobu la waaqi luy ñëw la luy tàbbi la dina ñëw de dinaa leen ni ma leen dundalee noonu dinaa leen ko reyee ba pare dinaa leen dekkil ngeen ñëw yéen ñëpp yowmal xiyaam fekk ma foofu ñu ne kañ la loolu di am yàlla mu ne fa isan nujumu tumisat bis bi nga xam ne dañuy effacer biddiw yi biddiw dootul am ci kaw asamaan yépp dañu koy dindi du am leer du am dara biddiw yi dafay dañ koy maasaale benn biddiw dootul nekk ci asamaan mu ne wa isal wa isa samaau furrijat mu ne ak bis bi nga xamante ne nii dañuy dindi asamaan si dañ koy wàcce asamaan dootul am ni ñuy dindee biddiw yi noonu la ñuy dindee li nga xamante ni moom mooy asamaan si dañ koy tàqale ba nga xamante ni xam nga asamaan yi juróom-ñaari asamaan la dafa tegaloo benn ci kaw benn ba mu nekk juróom-ñaar waaye nag mu ne bu yomal xiyaamee isa sama ufurijat bis bi nga xam ne dañuy tàqale asamaan yi ba nga xamante ni day tasaaroo wa isal jibaalu nusifat mu ne bis bi nga xamante ni dañuy wal mokkal doj yi ba mu nekk suuf pëndax lay doon doj dootul am yomal xiyaam montagne yi li muy rëy rëy xeer yi rëy yi nga xam ne moo fi am yépp yàlla daf koy mokkal bu mokk rumbax wa isar rusulu uqitat mu ne bis bi nga xam ne dañuy tàqal yenent yi ak ñu dul yenent xam nga yomal xiyaam bu ñu dekkee yàlla dafay tàqale ñi nga xam ne ñooy yenent tegal leen côté ñi nga xam ne du ñu yenent yi daal di nekk beneen côté boo xam ne fa la ñuy taxawee mu ne li ay yawmin ujjilat yàlla mu ne maa ngi wax ne lii lépp maa ngi koy wax ci bis bi nga xamante nii bu jotee dafay ñëw bis bi nga xamante ne moom mooy bisu yowmal xiyaam bis bi nga xamante ne mooy bis bu màgg lay doon boo xam ne bu rëy lay doon bis boo xamante ne nii jaam ñëpp dañuy siy ñëw tasee ci ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala li yowmil fasli yàlla mu ne ci bisub tàqale ba bis boobu la ñuy tàqale doomu aadama yi ñi def lu baax dem àjjana ñi def safaan bu leen yàlla yërëmul dugal leen fi nga xam ne moom mooy safaan mu ne wama adraka ma yowmul fasli ana lan moo la xamal yow Muhammad lan mooy bisub tàqale ba ñu ne ko yàlla de boo ñu ko waxul duñ ko xam yàlla mu ne bis boobu daal su ñëwee xam leen ni waylun yawma idin lil mukaddibiin xur wa ca safara bu gën a xóot mu ne keroog ñeel na ñi nga xamante ni ñooy fenkat yi ñooy weddikat yi mooy ñi nga xamante ni nii gëmuñu yàlla lu yàlla wax duñ ko def lu mu tere duñ ko bàyyi yàlla mu ne bis boobu bu ñëwee waylun mbugal ak xur ba nekk ci biir safara yow ma isin keroog ñel na ñan lil mukaddibiina mooy ñi nga xamante ni dañuy weddi ne yàlla amul yàlla daal di continuer ba tey di wax ak yonent bi salaa salaam ne ko ne waxal sa gaay yi ne leen alam nuhlikil awwalin xanaa du ñun yàlla ñun ñoo alagoon ñi nga xamante ni ñoo fi jiitu woon avant ngay ñëw yonent bi salaa salaam ñi nga xam ne dañoo ñëwoon ci kaw suuf bañ leen indilee ay yenent ñu weddi yenent yooyu dañ leen alagoon ñu mel ni nit firawna ñu mel ni firawna ak ñu mel noonu yàlla mu ne summa nutbi'uhumul aaxirin topp nag ñu teg ci ñi nga xamante ne nii mooy ñu mujj ñi ñu mujj ñi tamit ku ci weddi yàlla tamit ku ñi ñoom ñëpp dinaa leen alag man yàlla mooy ñu nekk kufaar yi nga xam ni ñoo nekk màkk mu ne kadalika nafaalu bil mujrimin comme noonu day la ñuy def rek kàccoor yi gis nga ni ma def ñi fi jiitu woon def ko ñi nekk nekk màkk ñeneen ñi nga xamante ne nii tamit dañuy weddi te ñëwaguñu te nar a ñëw noonu laa leen di def yàlla mu ne kadalika nafaalu bil mujrimin waylun yawma izin lil mukazibin mu ne xuur wa ca safara day ñeel na ñi nga xamante ne ñoom ñoo weddi yàlla subhanahu wa taala bu gisee saar bi yàlla répété na ko si ay yoon nga xam ne kon yàlla lii muy wax ni lu jara bàyyi xel la lu jara déglu la yàlla daal di commencé nag di wax ak doomu aadama yi di wax ni mu leen sàkke ak ni mu leen def ak fi mu leen indi ak fi mu leen yóbbu yàlla mu ne alam naxluqum min maa'in mahiin xanaa du ñun ñoo leen bind ci ndox mu doyadi yow doomu aadama looy rëy looy ngand ngandalu looy tiitaru yàlla mu ne xanaa du man yàlla maa leen sàkk ci ndox moo xam ne mu doyadi la su la taqee da ngay raxasu muy nekk mànniyu mu ne fa jaalnaahu fii qaraarin makin ma def ko ci place boo xam ne bu am sécurité la place boo xamante ni bu fermé wu la boo xamante ni dara mënu ko faa jële xanaa man sama coobere yàlla man yàlla sama coobere xam ngeen ndox mu doyadi moomu bu ko yàlla gindee si ndiggu góor daf koy dugal ci ruux mu jigéen kon rox mu jigéen boobu mooy xaraar mag yiin yàlla daf ko faa denc mu nekk denc boo xamante ne nii bu ñoŋewu la boo xamante ne nii kenn mënu koo dindi yàlla mu ne ilaa qadarin maalum ma def ko fa ba bis boo xam ne bu ñu xam la qadar maalum mooy bis bi nga xamante ni doomu aadama bi daf da siy juddu mooy waxtu bi nga xamante ni mooy waxtu juddu bi moom la ñuy wax qadarul maalum kon yàlla dafay wax ñetti étape yoo xam ne moom la nit am benn bi mooy bu mu nekkee man yu nekk ci ndigal ku góor mu ne xanaa du man maa bind bind doomu aadama ci ndox moo xam ne bu oyof la bu doyee di def ko fan fii qaraarin makiin muy ci rox mu jigéen ba kañ ilaa qadarin maalum ba dig boo xamante ne bu ñu xam la man yàlla maa ko xam maa xam kañ la doom jooju di juddu mu ne su ko defee bu loolu lépp amee man yàlla fa qadar naa ñun yàlla ñu dogal fa niamal qaadiruuna ak ñoo mën a xéewal ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy dogal ak ñoo mën a am xéewal moom yàlla subhanahu wa taala mu ne waylun yawma idin lil mukazibin mbur mbugal ñeel na ñi nga xamante ni ñoom ñoo weddi yàlla subhanahu wa taala fa qadar naa fa niamal qaadirin nee nañ yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax si ni mu bindee doomu aadama mu ne ñun ñoo dogal tamit cëram yooyu def ko ba nga xamante ni nii bu génnee dafay mucc si ayib am ay cër am loxol am bopp am lépp yàlla subhanahu wa taala mu ne man maa gën a mën a nekk koo xamante ni damay xéewal doomu aadama bi ndax cër yi la yàlla jox rek xéewal la yàlla mu ne alam najalil arda kifaatan mu ne xanaa du ñun yàlla ñoo jël suuf si ñu daal di koy def wattu ko ñu wattu suuf si ba nga xamante ni di ngeen ci mën a jëriñoo di ngeen ci mën a def li ngeen bëgg a def di ngeen ci mën a def lépp loo xam ne rek soxla ngeen ko mën ngeen koo def ci suuf si ba pare nag ah yaa am wa am waatan ma def suuf si si biir suuf si ngeen di ci dund di ci jariñu ci biir suuf si bi ngeen deewee ma dugal leen ci yàlla moo xereñ ni muy misaalee mu ne ah yaa wa am waatan su ngeen dund yéen a ngi ci kaw suuf su ngeen deewee ñu denc leen ci kaw suuf ba pare nag wa jaalna fiha rawasiya shaamixaatin wa asqaynaakum ma an furaatan mu ne ba pare nag ma daal def ci suuf soosu rawasiya ma def si li nga xamante ne nii moom mooy ay tàll ay ay lal yoo xam ne mën ngeen cee tëdd def si li ngeen ay yoon lépp lu ngeen bëgg rek man yàlla man maa ko def ci suuf soosu nga xamante ne nii da ngeen ciy mën a tàllalu tabax si dëkk si def si lépp lu ngeen soxla chaami xaatin yu ngan nag yoo xamante ni yu rëy la da ngeen ciy mën a def lépp lu ngeen bëgg a def wa asqay wa asqay naa ko ma màndal leen ci suuf soosu maa an furaatan ndox moo xamante ne bu neex lay doon suuf si si laay bay si laay taw sama ndox mi si laay bënn ay teen si laay bënn ay dex ngeen siy naan si la ñuy def lépp lu ngeen bëgg a def ci suuf soosu yàlla mu ne waylun yawma izin lil mukazibin xur wacca safara ak mbugal mu metti ñeel na ñi nga xam ne dañ may weddi man yàlla xanaa su yàlla waxee lii lépp waratuñ koo weddi yàlla mu ne léegi nag intaliqu ila ma kuntum bihi tukadibuun léegi nag dem leen ci li nga xamante ni moom ngeen doon weddi yéen ñi nga xamante ni yéenay doomu aadama yi dem leen ci li ngeen doon weddi ngeen yaakaar ni yowmal xiyaam du ñëw intaliqu ila zullin di salaasi shu'abin mu ne dem leen ci ker goo xamante ne nii mooy ker googu mooy kerug safara jour boobu amul ker dafay nekk loo xam ne zi salaasi shu'abin dafay am lu mat ñetti dajaloo yoo xam ne daf koy dajaloo shu'ab boo ko déggee mooy ay tàkk-tàkk la wala ay saxaar yoo xam ne dafay yëkkatiku nekk biir safara nekk nag mu ne ñetti cer la def yàlla mu ne laa walili wala yughni min al lahab amul ker gooy kerlu ba pare nag mënoo daw tàkk-tàkk boobu dafay tàkk nekk loo xamante ni safara soo xam ne suy tàkk la ba ci kaw mënoo daw am ker goo jëm amoo fenn foo jëm innaha tarmi bi shararin kal qasri ka annahu jimalatun sufr subhanallah yàlla mu ne boobu safara soosu dafay sànni ay ferñeent yoo xam ne dafay rëy ba toll ni ay étage mbokk yi gis ngeen ferñeent àjjana a àdduna sooy boyal tey ba upp taal bi safara si bu fekkee këriñ bi dafay génn ferñeent yi mu sewee ferñeent yooyu benn bu ne tàpp sa yaram bi rek da ngay gis dafay def tupp bu ñuul dafay lakk metti lool loolu nag lu ndaw la ci sa ferñeent yi nga xam ne moo ñuy mooy moom la yàlla préparé fële alaaxira yàlla mu ne ferñeent yooyu dafa rëy ba toll ni lan tarmi bi shararin kal qasri dafay rëy di sànni ay ferñeent yoo xam ni ne dafay toll ni étage dafay gudd ba toll ni étage mu ne ka annahu jimalaatun sufrun mu ne dañuy ngand mel ni ay gileem yu xonq boo leen gisee li ñuy génne ci safara si dafay mel ni gileem yoo xam ne yu xonq la gileem yu gudd yooyu yu ngand yooyu noonu la ñuy tàkkee di génn yàlla mu ne waylun yawma izin lil mukazzibin mbugal ak xurwa ci safara ñeel na ëllëg yawmal xiyaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy weddi yàlla yàlla buñ ci yàlla boole yàlla mu ne hada yawmu laa yantiquun gis nga bis bii kenn du wax amul lay amul miim boo demee ci surtu yaasin yàlla mi ngi naan keroog seen loxo yi ak seen tànk yi mooy seede li nga xam ne moom ngeen doon jëf kon lay du fa am moo tax mu ne hasa yawm laa yantiquun bis bii day wax amul wala yudanu lahum fa yaataziruun te kenn du leen mën a jox ndigal pour ñuy jéggalu yàlla du la jox ndigal pour nga jéggalu amul jéggalu amul baalu li am rek mooy la nga fa jëfoon moom nga fay fekk yàlla yërëm la dugal la àjjana wala mu ñàkk laa yërëm xisaab la daal di lay dugal safara yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci suñu tafsiru tey alquraanu tey di ñaan yàlla subhaanahu wa taala defal ñu dégg ak topp si li nga xamante ni moom la ñuy wax di wax ne tafsiru tey bi nag ki nga groupe bi nga xam ne moom la ñu ko tuddee mooy groupe gëm sa bopp si jiital Ndey Binte Diagne di ko séddale mu séddale ko waa groupe bi yëpp di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko defal ko mboolem jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين warham mawtana wa mawtal asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di dalal jàmm bu ngeen ma gisee di ngeen ma war a xàmmee ci seen jotaay Sissoko Habbatu Sauda ci suñ jotaay tey bi nag ma di leen présenter suñu produit muy Sissoko Habbatu Sauda Alpinia ak Sissoko Habbatu Sauda Alpinia bi garabu xel bu baax a ngi nii pour yéen mii dem école ba ci yéen mi nga xamante ne da ngeen di gaaw a fàtte da leen di jëfandikoo Sissoko Habbatu Sauda Alpinia ndax xabatu sawda ñëpp xam nañ ne yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne képp ku ko jëfandikoo dina faj bépp feebar ci biir yaram ba mu des feebaru dee ba noppi xabatu sawda lu bari lay def ci yaram moo tax Sissoko xabatu sawda mu daal di leen demal ci réewum arab yi demal leen ci réewum tubaab yi daal di leen indi lii di alpinia alpinia bii nag à base de xabatu sawda la ñu def si ay plante naturelle yoo xam ne pour nit kuy gaaw a fàtte la ak nit koo xamante ne sa xel neexut lool yéen élèves yi jënd ji leen lii di Sissoko Habbatu Sauda Alpinia ndax yéen rekk tax ñu defal Alpinia bi ndax dañoo bëgg lépp lu ngeen di jàng ngeen di ko mokkal bu baax kon jëfandikoo leen Sissoko Habbatu Sauda Alpinia pour ngeen neexal seen xel ba noppi yow mi nga xam ne da ngay gaaw a fàtte del jëfandikoo Sissoko Habbatu Sauda Alpinia baax na ci képp koo xam ne sa xel neexut lool wala sax yow mi nga xamante ne da nga bëgg a lépp looy jàngal nga mokkal ko ci ni mu gën a gaawee Sissoko Habbatu Sauda Alpinia bii daal mooy waaja yéen sama mbokku élèves yi yéen ñëppay gaaw a mokkal ci at mii ndax Sissoko Habbatu Sauda Alpinia bii pour yéen élèves yi la ak képp kuy gaaw a fàtte fi ngeen ko mën a amee nag yomb na mooy ca Nord Foire rond-point 26 à face restaurant Yum Yum wala sax ngeen dem ca Médina rue 1 angle 12 ak Sissoko Habbatu Sauda 100% naturel la 100% bio
ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين